madame Diouf ndey Naam yow yaay directrice alphabétisation et des langues nationales ñu lay dalal tey jii euh, di la nuyu. maa ngi di fay. di la dalal tamit ci contexte bi nga xam ne ñoo ngi màggal quarante cinquième semaine euh, alphabétisation euh, donc tey jii ak pandémie bi nan ngeen fas yéene màggal édition bi. waaw donc maa ngi commencer par di leen gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen ma defal pour ma mun a wax ak sénégalais ci li nga xam ne lu am importance la muy alphabétisation ak langue nationale. national mm-hmm. di nuyu ñi may déglu muy góor di jigéen di di la remercier yow moomu mais di remercier aussi r eh, kii réew mm-hmm. comme ko waxee rek quarante cinquième bi ñeent fukkeel beeg juróom juróom bu semaine nationale de l'alphabétisation mm-hmm. dafa tombé ak feebar bi nga xam ne moom la wax covid dix neuf nga xam ne lu bëri lu kon def luñ ko mën a def moo tax ren activités yi am na tax ci région yépp mais ni mu doon développé di yaatu ñoom di ci euh, participer du mun a am ren. Hmm. ndax Covid bi moo tax ñu proposer ay activités yi nga xam ne euh, lu ci bëri kii lay doon caravane bi gën a mag nag mooy bi ñuy def tàmm di ñëw fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi hmm. ñu nekk di wër ci rue Dakar yi. def ay caravane yi nga hmm. dinañ mën a wax ak nit ñi échanger ak nit ñi ci mesure barrière yi naka la ñuy def ba xeex mhm. mbas mi mhm. naka wane wan nit ñu ni gën a porter masque yi def ko nag ci suñu làkk yi naka naka la ñuy roxe raxase loxo yi mhm. eh, ni ñu porter masque yi mais respecter loolu dañ ko bëgg a def ci caravane bi bi nga xam ne biir Dakar lépp dina ko sillonné mu ngi mu ngi nar a commencé Gédo terminé fi euh, université bibliothèque universitaire dañ nar a mais dinañ jaar fu baree baree bare maanaam buñ jógee Gédo dinañ romb Thérèse romb Blaise Diagne enam wàcc euh, Kennedy ñëw groupement euh, taxaw foofu communiqué ñu wàcc dem RTS communiqué foofu wàccaat dem ba euh, kii kii Petersen mm-hmm. rond point boobu ñu taxaw communiqué wàcc dem ba place de l'Indépendance ñu communiqué foofu encore wàcc dem ba euh, ministère de l'intérieur rond-point bi ñu communiqué wàcc dem euh, caravane bi jaar Corniche Ouest foofu nag taxaw tuuti parce que dañuy joxe ay masque ak ay gel euh, te foofu dafa am ay yu fa nekk am prison prison Rebeuss bi prison bi nañ fa taxaw directeur fekk ko fa ñu waxtaan ak ñoom ba pare jox leen ay matériel Covid du nekk rek nag pour Rebeuss dafa nekk ci yoon bi mais dañ ko jox directeur bi mu def dispatching ci ñetti prison prison yi femmes yi nekk parce que ñoo gën a vulnérable ak si jeunes yi nekk mhm. mooy prison Liberté 6 prison bi nekk Hann mhm. foofu sax dañ ko ubbi ay classe d'alphabétisation parce que dañuy travail ak mag yi d'accord donc bu ñu rombee Rebeuss ñu taxaw foofu joxe loolu ñu jóge fa ñëw ci mosquée omarienne bi dafa am daara bu mag bu fa nekk boo xam ne ay xal yu bare nga fa foofu itam ñu communiqué fa ba jox leen matériel surtout masque ak gel. ak saabu. d'accord bu ñu paree aussi am na foofu empire des enfants nga xam ne ay xale ñoo fa nekk dinañ fa jaar joxe fa dara bu ñu paree ñu génnaat utali université bu ñu yegsee nag université dañ fa fekk acteurs yépp les linguistes universitaires les personnes ressources les les organisations de la société civile collectivité euh, territoriale nañ fa am ay représentation ñu daje fa ñun ñëpp ñu waxtaan échanger naka la ñuy fexe ba langri yi euh, taxaw nag sensibiliser population yi ci ñaar fukki langue yi nga xam ne codifié nañ ko ci Sénégal yépp foofu lañ koy waxtaane ku nekk nag ñu tasaaroo ku nekk dem sa gox def liggéey bi moo tax lii semaine bi dafa nekk semaine boo xam ne boo moytuwul day day topp rek moo tax dañu ñaan sax mu gaaw a jeex ñu gaaw a arrêté suñu activité parce que dañu bëgg Covid bi teel a taxaw donc tant que Covid bi yéen a ko fi dégg ñu ngi sensibiliser ci vingt-deux langues yi Mhm. loolu donc mooy soloy caravane bu ñu bëgg a def dajale ñëpp nag ñu bëri respecté distanciation yi te yore suñuy masque takku ko normalement. Mhm. ba pare waxtaan ba xam ne buñ paree ci la ñu foofu sax la ñuy yaakaar naa jàppee euh, bésu panel bu mag bi ñu bëgg a def. Mhm. pour acteurs yëpp daje ñu def benn mobilisation boo xam ne Sénégal yëpp dinañ ci teg seen bët. ndax Sénégal dafa am thème bi nga xam ne moom moo ko moomal boppam. waaw Sénégal dafa am thème. parce que thème bi yaatu la moo ko joxe mais dañuy tànn parce que euh, pays dëkk bu ci nekk da am sa souveraineté. Mm-hmm. donc dañuy seet ci benn thème boo xam ne rek xoole na ci thème mu international bi moo tax ren thème bi nga xam ne moom la ñu tànn fii Sénégal mooy wone importance soloy euh, alphabétisation ak langue nationale ci xeex Covid bi. Mm-hmm. ndax solo bi euh, bu fekkee sax xamuloo di nga mën a jëli parce que di nga xam ne ñaar fukki langue yi xam Sénégal yëpp koy làkk fii ba Fongola mi foo dem. langue yëpp ku ci ne am na looy làkk ñu communiquer ci làkk yooyu nit ñi xam naka la ñuy xeexe Covid bi parce que sentir nañ ne sensibilisation bi des na hmm. te buñ ko defee nag suñu langue yi nga xam ne moom la ñu moom moom la ñu namp defe naa ne nit ñi ñëpp dinañ mën a comprendre naka la ñuy xeexe Covid bi hmm. donc sensibilisation boobu moo am solo te noonu thème bi foofu lañ ko tourné autour de waaw l'importance de l'alphabétisation et des langues nationales sur la lutte contre le Covid. ñaata nga ñu mën a wax euh, ci ma ci taux alphabétisation bi. waa ñi nga xam ne taux d'alphabétisation mooy ñi nga xam ne jàng nañu mën nañu lire mën nañu bind. ci mhm, Sénégal. Mhm. boo jëlee téeméer bu nekk ñeent fukk la ak juróom bu teg tuuti ce qui veut dire juróom fukk li ëpp yëpp juróom fukk ak ñeent da tegal jàng mënuñu liggéey mënuñu bind mënuñu calculer. Mhm. donc loolu mooy taux bi. taux boobu nag ANSD moo ko joxee ñiy def statistique di def enquête di def ay recherche ñoo ko joxe depuis 2013. Mhm. donc dugalaguñ ci li nga xam ne moom la def ñun depuis 2013 ba 2019 euh, effectif bi ma la jox léegi sax duggagul. xam naa ne comme fi mu nekk nii ñu ngi bëgg a lëkkaloo ñun ñëpp xool nu ñuy def ba problème yooyu yëpp nekk suñu gannaaw. xam naa ne dinañ ci taxaw ba taux bi nga xam ne nag actuellement moo am ñu mun ko communiquer ndax état bi lu nekk moo koy def actuellement pour réduire analphabétisme bi même PAP 2 bi nga xam ne moom la euh, PAP 2 a laa ko wax moom la président euh, euh, président bu yàggu rek ñu ngi ciy wax ne il faut ñu éradiquer analphabétisme effet mm-hmm. attendu deux point un la tudd l'analphabétisme est réduit mooy PAP 2A bu PSE bi nga xam ne moom la ñuy dérouler actuellement mm-hmm. waaw kooku wax ne président de la république moo jëkk taxaw pour ñu xeex mbir mi pour ñu dellu si comme année euh, deux euh, euh, quatre vingt dix yi ñu doon dégg alphabétisation ak ministre Mamadou Ndoye mhm. dañ bëgg weesu foofu sax mu nekk nii président dafa jóg taxaw engagé wu ci xeex bi moom ci boppam ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla engagé wu si mhm. ànd si ak ñun direction bi ànd si ak acteurs yëpp tudd naa leen leen ci français ñun ñëpp actuellement ñoo bëgg a ànd pour xeex nag mbir mi mu jóge fi benn yoon Sénégal yëpp mën a gis seen bopp ci li ñuy def. tey jii ñan la gën a mën a jàpp ne moom la programme yi di enrôler maanaam euh, góor ñi jigéen ñi ndaw yi. non góor jigéen ñi la gën a enrôler nga lu tax. parce que taux bi ma la jox noonu. ñi jàng. jigéen ñi ñoo ñoo gën a ñàkk jàng ci Sénégal ak xale yu jigéen ñi. donc jigéen bu ñu jëlee taux bi jigéen ñoo ci gën a jànguñu mënuñ liir mënuñ dëgg mënuñ calculer jigéen ñi ñoo yore économie bi ba ci marché mhm. ñoo fa nekk nga dem euh, tool yi jigéen ñoo fa nekk nga dem transformation produits halieutiques ñoom ñoo ca nekk transformation des produits agricoles jigéen ñi la mhm. jigéen ñoo takk seen digg nekk nekk nag waaw am nañu ay jigéen universitaire ñoo xam ne ñu ngi taxaw ñoom it jàpp jàppale jàpp si mais nag ñi jàngul ci ñun ñoo ëpp dañ leen war a dimbale parce que ay sénégalais lañ comme ñun mhm. loolu moo tax ñu ne bu ñuy enrôler ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp te jàngoon ñooñu la ñu war a gën a enrôler mhm. pour ñu mun a dab ñeneen ñi góor ñi ñi enrôler ñoom ñoo ëpp ñu jàng ñoo ëpp ci góor ñi parce que nit li ñu tàmmoon mooy Sénégal boo amee sa doom bu góor sa doom bu jigéen te doom bu góor bi ngay gën a toppatoo naan ko da war a yore kër rek yaa war a takk jabar yaa war a kii donc kooku la ñuy poussé mu jàng ku jigéen ki ñu ne ko na nga dem ca waañ wa mais léegi àddina dafa dox. Mhm. àddina dafa changé ba nga xam ne ku nekk nag fi nekk nii ñu ne ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sër ku nekk dañ xam nañ ne famille euh, kii moo ko yor jigéen moo ko yor. jigéen mooy yar jigéen mooy ëmb mooy wasin mooy nampal mooy yar mooy tette mooy yóbbu école mooy sang mooy def lépp kon base société bi jigéen la jigéen boobu nag buñ ko jàngalul mënul bind mënul liir mënul calculer mënul bokk ci société bi normalement mhm. kon société bi du dem loolu moo tax suñu sous développement bi taxaw il faut jigéen ñi dugal seen loxo te bu ñu dugal pour dugal nag seen loxo il faut ñu ta jàppale leen taxawul leen encadré leen ba ñoom mun a gis seen bopp mi parce que liggéey ñu ngi liggéey bi bi ci gën a metti sax nit ñi duñ ko considéré liggéey mooy bi ci biir kër gi mais génn nañ fi ne kër gi sax liggéey yi ñii a ngi booru géej ñii ngi fajar bi da ngay gis ñuy dàq kaarapiti di wuti jën mhm. ñii di fu ne ñu nga fa ñu nga ca gerte ga ñu nga ci dugub jën ñu nga fu ne donc ñooñu nag dañ leen war a toppatoo bu ñu demee nag peut-être ba tolloo bu boobaa nag ñun amuñ xàjjee ak seen góor ak jigéen ñëpp la ñu war a encadrer ci Sénégal ñëpp la ñu war a former ku nekk gis sa bopp xale yi am liggéey Sénégal jëm kanam. Mhm. ñun ci loolu la ñu nekk. d'accord bu ñu sukkandikoo ci CNOS madame la directrice nee na sous secteur alphabétisation tey jii jafe-jafe yu bëri euh, sooxe na ci instabilité institutionnelle bi ndax tey jii ni ñuy changer à chaque fois lii di département bi di ko yóbbu ci ministère yi euh, am na lu mu yàq wala am na njeexital ci seen liggéey. waaw loolu Euh, mun naa wax ne am na lu muy yàq xam nga lu tax parce que boo nekkee benn ministère ba tàmbali liggéey bi ba ñu ancré wu foofu boo ko changé day ma ni recommencement. Mhm. parce que léeg-léeg ñu nekk ministère de la culture léeg-léeg ñu nekk ministère de l' nationale léegi ñu nekk ci beneen ministère ministère de la formation professionnelle mais nag depuis en tout cas ñu nekk fii changé wul ñu ngi nekk ci ministère de l' éducation nationale euh, ministère bi engagé wu ànd ci ak autorité les autres autorités par le président de la pour nag ñu am stabilité te boobu léegi ñu nga am stabilité àndandoo ak suñu ministère àndandoo ak organisation société civile yi àndandoo ak privé yi àndandoo collectivité territoriale yi nga xam ne ñoo ko war a porter ndax acte trois de la décentralisation ku nekk nag andi li ñuy wax la main à la pâte nga dugal sa loxo ñu àndandoo liggéey xalaat teytu euh, pour Sénégal jëm kanam alphabétisation mun a avancer. Mmh. madame madame la directrice nga foog ne ñu delloowaat leen euh, lii di secrétaire euh, chargé de l'alphabétisation du doon li gën ci yéen. waaw loolu ka nekk loo xam ne ki ko war a def mooy ki nga xam ne moom mooy chef de l'État te moom defe naa ne engagement bi mu engager actuellement ci secteur bi mhm. taxaw ba tey ñoom ñu ngi doon xalaat te Covid bi naka la ñuy def mu ne jóg leen ngeen def sensibilisation parce que langue rek ñoo mun a dugg pour nit ñi mun a xam loolu président de la ko waxal boppam. Mhm. kon kooku jaratu ñu naan ko defal li defal lële moom nag euh, euh, moo sañ ne fii lii laay def fii kii laay teg fii kële laay def fii mm-hmm. kooku président rek moo am prérogative yooyu nañ ko bàyyi nag moom comme c'est le premier militant de l'alphabétisation et des langues nationales mm-hmm. te moom xam na li muy def xam na fi bëgg a jëm ak ñun ñu ngi ci ànd ak moom di ko def ak ministère ministre de l'éducation nationale yaakaar naa euh, buñ te yeggee rek xol yi dina sedd xoli acteurs yi ak xoli sénégalais yi dina sedd. annoncé woon nañ 3 pour cent yokku ko ci seen budget euh, tey jii ndax loolu am na yemb na. noo yeggagul ndax dëgg rek la yàlla bëgg. Mhm. amaguñ 3 pour cent yooyu nga xam ne depuis conférence dama ko en 2007 lañ ko annoncé woon. Mhm. mais nag xam nga boo buggee def liggéey boo xam ne dafa yàgg defuñ dara parce que man bi may nommé mhm. man fekkuma fi euh, programme bu état de. toog nañ lu yàgg depuis les années quatre-vingt-douze programme état amatul woon mhm. programme euh, organisation société civile ñoo doon déroulé ay programme opérateur yi yooyu mhm. deux mille treize la la ñëw ñu ne nag nañ def programme national boo xam ne euh, dinañ taxaw ba nga xam ne financement bi dina baax dinañ mun a alphabétiser des milliers et des milliers de Sénégalais ci loolu la nekk di ko liggéey te wax naa la léegi deux millions cent et def nañ ko seulement dañ ko comptabiliser gu mhm. te ñu ngi ci continuer di ko liggéey te yaakaar nañ fii ñu jëm ni euh, dina xool dina sedd mais dañuy ñaan rek ci lii ñu nekk ni muy covid bi nga xam ne lu bëri moo ko téye mhm. ñu ñaan mu jóge fi pour li président mébét état bi mébét ko ci secteur yëpp nag ak alphabétisation yàlla mun ñu dimbale ñu mun ko taxawee loolu moo tax ñu koy gërëm aussi di ko sant ci relance bi mu am kon buñ mun a génn sax benaan dañuy def ay caravane kon ñu ngi remercier président ci loolu ñu ngi koy remercier aussi ci implication bi nga xam ne impliqué wu na ko ci secteur bi ci secteur de l'éducation di remercier suñu ministre de l'éducation nationale mi nga xam ne moom subaa ngoon fi ne mu ngi daw ci éduca ci alphabétisation ci secteur am bi mu yor mais surtout ci LGA éducation de base des et des adultes bi nga xam ne man moom laa yore. mu mhm. ngi koy gërëm di sant di gërëm ñëpp nag euh, organisation de la société civile di gërëm collectivité territoriale di gërëm privé ñi nga xam ne ñu ngi dugal seen loxo pour dimbale jigéen ñi nga xam ne a xale yi nga xam ne jànguñ ñu jàngul en général Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di masawu nag ci inondation yi parce nag boo waxee fi ne te waxoo inondation ñaari fan yi wax yàlla euh, euh, sa wax du mun a sax waa parce que nit ñi fi ne dañ nekk jafe-jafe mais bokk ci waaye fokk waa ci la bokk uh-huh. fokk ñu ñu ñu masawu ñi parce que métti na am na ñoo xam ne nelawuñu gudd samedi métti na trop man dama tëdd yeewu ci guddi ba mu yàgg ma toog ma ne nit war na sant yàlla am na tey koo xam ne mënul nelaw ñee ngay jël ay pot di sëj ñi seen matlaaya tooy kon sénégalais ñu ngi leen di mastawu ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbënn mi yal na yàlla teggi tiis yi te ñun ñëpp ñu dellu ci suñuy biir kër euh, di dund comme nu ñu war a dund yàlla nañu ko yàlla defal te président mu ngi ci lancé na plan ORSEC ba ministre de l' ak ministre de l'eau et de l' assainissement ñu ngi woon démb kër Massar di mastawu nit ñi di seet Euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci état kenn toogatul ñëpp ngi jóg. pour jàppale président ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def ci nit ñi. ma dem madame Diouf Ndeye Ndam merci beaucoup. man maa di leen sant. Mm-hmm. ci occasion bi ngeen ma jox. Mm-hmm. ma communiqué ci activité bi nga xam ne moom la ñuy préparé nii. communiqué en même temps maa tawu Sénégalais yi wax li nga xam ne moom la état du Sénégal di def gërëm naa sant naa di leen jéggalu nag ci. kàddu yoo xam ne peut-être wax naa ko te xamuma ne jubul. dëgg la dëgg la. merci beaucoup en tout cas.